salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar ci ndigalu xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke ci jëwriñu sëriñ Cheikh bas moom sëriñ Abdul Xaadir euh, kuréel gi nga xam ni ñoo doon taxawu mbale mi naka jekk doon ko def ci benn fanu safar gi daan ñu baaxoo at mu jot bu ñu gàmmoo ba bisu gàmm ba dee si ba ci suba ga ñu def ko muy balewaat dëkk bi setalaat ko ba mu set wicc muy talaata bii di ñëw bu delsee kon lañ koy jàpp ci jëwrinu Serigne Cheikh Mbacke Lappe moom mi nga xam ne moo koy taxaw kon ñu jox sëñ Cheikh Abdou moom sëñ Daam Atta mu ubbi waxtaan wi asalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sunu kilifa gi di sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdul Ati Latif mi nga xam ne mooy njiitul kuréel gi nga xam ne mooy commission assainissement bi yore wàllu mbalem Touba mi te depuis biñ ko tàmbalee ba tey mu nekk ci nekk ca bopp ba nekk ci nekkin wu rafet Euh, représenté ci sëñ Basirum sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo yore liggéeyu màggal gi te lépp ñu ñu di ko def ci ndigal ak kilifteefu Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko li nga xam ne moo waral daje bi nag mooy ni ngeen ko xamee rek at mu ne 2008 ba léegi dañuy def bu ñu jubee màggalu Touba gi ñu setal dëkk bi dëkk bi yëpp ak li ko wër ñu àndandoo setal ko ba mu set noonu it lañ ko baaxoo defee bu ñu màggalee ba noppi ba gàmm ba noppi ñu seetalaat dëkk bi loolu nag lañuy waajal muy mbaleem ñaareel mi ah, war ko yëgoo ak ñëpp ànd ko ak ñëpp ndax ndigal la loo xam ne ci mbooleem murit yëpp la dal loolu nag tax kon ñu ne ci waajtaay wi di ko yëg yëgle di ko fàttali ñëpp mbokki jullit yëpp mbokki taalibi yëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi ngir ñu àndale waajande ñu àndandoo waajale ko nañ ko daan waajale waajtaay wi nag niñ ko xamee mooy fas na nañ yéene bale dëkk bi ci nañ ko daan defee niñ ko xamee itam mbalem ñaareel mi dañ koy tàmbalee ci jumaa ji ak li ko wër mooy priorité bi ba ci corniche bi xëy na bu ñu amee pas-pasu jàll feneen ñu jàllale ko fa waaye priorité bi mbalem ñaareel mi mooy biir corniche bi ak li ko wër bu ko defee ñu xamee ko noonu di soññ waa dëkk bi nga xam ne ñoo dëkki dëkk bi ci ñu génn bale nañ ko daan waxee bale sa lal bale sa néeg bale sa ëtt bale seeni mbedd dajale mbalit mi ci barab boo xam ni oto dana ko fa mën a fekk jël ko ci loolu kan la ñuy soññ ñëpp te ñu nañ génn fas yéene bale ji ndax mbooloo mi nga xam ne ñooy daay yi ak ñiy yore tonne bi mënuñu fu ne ñu ñëw taxawal fa seen bopp baleel ko seen bopp tonnel ko seen bopp kon day war ku ne génn bale noonu ñu xamee itam bu ñu balee ba noppi itam am na lu ñuy soxlawoo muy lu tonni mbalit ma loola ñu ngi soññaat di sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko daan àndal muy regroupement chauffeur benn yi ci dëkk bi yëpp waaye ñu ngi ciy woo mbooleem transporteur boo xam ne am nga oto bu yàlla dogal mu mën a tonni mbalit ñu ngi ciy soññ ñëpp ku am oto loolu itam ni ngeen ko xamee lay doxal oto ya gasoil lay doon euh, ñu ngi ciy sant mairie bi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo di àndal ñu ciy def seen kéemtulaayal kattan waaye ñi ngi ci woo itam képp koo xam ne ni am nga moyen bu mën a yéwénal loola muy lu jëm ci gasoil bi nga xam ne mooy doxal oto yi ngir ñu mën a tonni mbalit mi waaye ci loolu itam mooy matériel soxla nañ ko noonu itam la ñuy soxlaa euh, ñi nga xam ne nii ñooy ay daayira yuy walanteeru ànd ko buñ ko tàmbalee ba booba fu mbalit mi nekk ñu dem fa lu ñuy tonni ñu tonni ko ñoom itam am na lu war ci ñoom mu jëm ci seen i xéewal ak seen moyen de déplacement ak yu ni mel loolu itam ñi ngi ci woo képp koo xam ne nii am nga ca man-man ndax niñ koy waxee liggéeyub sëñ Tuubaa la boo xam ne ci kaw morit yëpp la dal dañu fee nekk nun di leen ko nosal ak di leen ci jéem a taxaw waaye fañ nekk ñëpp lañ fa nekkal kon daal euh, yi nga xam ne nii soxla nañ ko muy génn bale ji moo ci jëkk waaye itam lu tuxal mbalit mi ak la koy doxal ak ña nga xam ne ñoo yore liggéey bi luñ mën di jëfandikoo loolu yëpp nag ab liggéey la boo xam ne ku ci ne am na foo ci mën a féete ku man yëpp fa lilahi alhamdu ndax moo nu war nun ñi jaayanteeg sëñ Tuubaa waaye ku mënut yëpp itam lépp loo ci man nga taxawee ko ci ngir liggéey bi mën a yéwén bu soobee yàlla nag euh, ñu ngi ko jàpp at mu ne bu ñu gàmmoo ba bis ba delsi ba ca suba sa kon ren ji incha allahu talaata lay doon muy talaatay ginnaaw suba ji bu dellusee kon nag bu ko kenn fàtte dañ daan tëj marché yi ñëpp àndandoo baleendoo ñu yëge ko noonu jàppe ko noonu mu mën a yéwénandoo xëy na it bu ci ñëpp jàppee du traîner ba yegg ci yenn yenn yenn yenn étape bi te su boobaa dana yomb ci ñëpp kon daal ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla sunu borom mu yóbbu ñu se ci jàmm xam naa li ci des ci ay kàddu akub soññe kon uh, sëriñ bi nga xam ne moo yor liggéey bi te doon wax ci kàddoom ak ndigalam dina ko mottali incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah moom de daa mel ne kàddu yi sëriñ abdu mat na sëkk dara dara lu ñuy dolli amatu ci daa fekk rek ne moom mbirum sëriñ bi moo yaatu yaatu koo xam ne daa mel ne dara du ca doy waaye li ñu waroon wax lépp sëriñ Abdou mii wax na ko leeral na ko soññee na ko kon gën a soññee rek lay doon gën a soññee ji nag la ko ci mbirum sëriñ bi ak diisug mbirum sëriñ bi ba nga xam ne buñ ci def si ci yitte doyut ndax mbirum sëriñ bi moo toll noonu li ñuy sàkku ci lu baax moo toll noonu kon naka jekk rek nan ko fasoo ji rek du mën a ñàkk nan bokk fetli suñuy laxasaay du mën a ñàkk nan bokk góorgóorlu du mën a ñàkk liñ ci waroon leeral si la leeral nañ ko mooy liñ ko daan doxal rek lañ ko doxalewaat waaj takku nas ko song ko tongandoo ko ëpp ko doole yéwénal ko loolu nii ko sëriñ Abdou waxee lay deme ndax ñi ñu daan woo rek la ñuy woo duñ bàyyiwaat kenn mooy taalibe sëñ Tuubaa yëpp rawaat nañ bokk dëkk ci dëkk bi ak kenn ku ne num ko ne mën rek woo nañ ko noona lu waaye am lu ci mën a dem rek woo nañ ko noona ndax dañ daan wax naan bale moom ñi koy seq mooy ki yenu yoru bale ak baleem di bale war a yoru radoom di radu nañ koy tonnee fañ koy teg mooy oto bañ koy teg oto ba ab gaz la koy dawal ña koy ñeit bale itam bu xewlu jotee dañuy bëgg a xewlu kon lépp loo xam ne luy tax yooyaa mën a jàppandi rek la woo nañ képp lu waay man te def ko ci man ko caa def kon ñi ngi ñi ñi génn bale di woo ñi indi jumtukaay bale yi di woo ñi am oto yi ñu teg ci mbaleen mi yóbbu ko diwoo woo di woo ñi mën a indi ay xéewal xéewal yi ñu defal ko ci mbareem kon yooyu moo ko seq sëriñ am tudd na leen ngeen ñëpp ñu wax it ne naka jëkk mbaleem ñaareel moom daanañ tudd biir corniche bi ndax boobu yi dañoo gëstu woon ba gis ne biir corniche bi mooy gën a taq mbaleem ñaareel ci biir corniche bi lu gën a jege biir dëkk bi gën a jege jumaa ji moo daan gën a taq ndax lu mel ne jaaykat yi li ñu fiy bàyyi lu mel ne ñam yu màggal yu jëriñootu daañu ko def ci sat ginnaaw kër kilifa yi loolu nag am na ci loo xam ne wàññi na waaye dafa wàññi ko rek waaye des na mi ngi fi kon bu kenn ne yomb na dinaa tàyyi kenn ñee bu ñee demee mu doy loolu boobaa itam ko diisal ci mbagg ña dem bu kenn ne demoon naa ci bu njëkk ba bii daa yomb bii dara mbirum sëriñ bi dara tuuti ci dara dara woyu fit li ëpp solo mooy ni ko mag ñi daan waxee ndigal lu mu mujj ñëw jàppal ne ndigal li ci la sa fañu ko aju nekk donc loola ndigal nga jàppe fonke ko noo fonki wutoon sax la jàll kon mbalem mi bu ne mbalem ñaareel nii daan demee wala daan daane wala daan gàtt wala daan woyof ndigal li ci boppam ndigal lu sëriñ bi ci boppam moo mënta woyof tuuti moo mënta woyof kenn ku ne na def si yitte ci ndigal li def ci sa positif ba jàpp ne sa ko aju mi ngi ci liggéey bii noo ngi gën a talalaat loxo yi di ko gën a fasoowaat nan ko daan defee di ko bëgg ànd it nan ko daan àndal ba lan ko daan nan ko daan songee mu yomb buñ ko songee waate nii mu gën a yomb kon noo ngi woon ñëpp di sant ñëpp na mu daan demee itam nga xam ni lu mu ci mën a doon danañ koy diisoog sëriñ saa jëmb ma jiite Baay Faal yi jiite kër Saa Ibra te ndigal lañ ci am ba fi mu ne ndigal loole na koy wéyalaat ba jokkoo nañ ci ak jëwriñ yi ci foofa jëwriñ ji nga mooy moo nekk suñu saa jëmb muy suñu mag yi ak suñu jëwriñ ji nga mooy suñu Moussa Mbar di jëwriñ suñu Fallou ma nga xam ne mooy ma daan taxawaat liggéeyam suñu saa jëmb bi ginnaaw boo ko suñu saa jëmb waxee Baye Fall yëpp jiital la ay rakkam kër saa yëpp yëpp suñu saa yëpp yëpp saa yëpp Fall yëpp ñu woo leen sëñ Fallou moom itam dañu daan ràññeeku ci ndigalu suñu saa jëmb ak nam daan yore kàddu gi kàddu si jàmm ci sant ñañ bokkal liggéey ba bu ñu leen war a leen bu ñu leen war a gërëm gërëm leen loolu lépp jaaraan nañ ci fañ ca daan jaar kon nag noo ngi séntu ñëpp waaye noo ngi séntu Baay Faal yi ñoom itam dañ daan def seen màggalu Seex Ibra jàllee dibéer ñu bàyyi ñu delloo bagage alterné ji noppalu ci tuuti ba talaata ñu xëy songi liggéey ba noonu ak dañ ko fas yéene defaat kon ñoo ngi waaj noo ngi séntoo noo ngi tàllal loxo ñëpp parce que yéen ànd ak taalibe bi sëñ Tuubaa yëpp tey ñaan sëñ Tuubaa gàttandul nu boppam nangul nu boppam jàppaleel nu boppam ba liggéey bi ni mu ko bëggee nu defee ko ni te buñ fa jógee suñuy aju faju nun sa yàlla kon na ko ñëpp dégg te jëfe ko te xam ni sëñ bi moo ko woote te murit moom bu xasee dégg ndigal rek jëfe ko rek lay def kon ñi ngi koy fàttali euh, bu ñu gàmmoo altine talaata ja bu delsee bis boobu lañ koy woote mu doon mardi le 27 novembre euh, fii ci dëkk bi ñu ngi ko yëgal ñëpp ñu jàpp ko pëseef te xam ni bu sëñ bi xasee woote rek kenn ku ne da ngay bàyyi yitte jëpp jubli ci mbale mi